thème général bi nekk formation ci néegu sëy ñu indi ay tam yu fasantikoo yoo xam ne lépp génnul ci biir néegu sëy fas yéene ci waxtaan ak ay saydaa yu wuute macha allah mbokk yi tey la suñu juróom benneelu jotaay jotaay bu njëkk ba nga xam ne ñu ko tàmbali woon dimanche ñu ngi ci doon jàngale lan mooy sëy ñaareel jotaay bi ñu ci doon jàngale nan la ñuy labatee ñetteelu jotaay bi ci doon jàngale àqu ñaari way dencoon tey ñeenteelu jotaay ba ci doon jàngale ban taxawaay la ñu war a am ci goro yi ak njëkke yi juróomeelu jotaay bi ñu ci doon jàngale colkowu jigéenu jullit euh, juróom-benneelu jotaay bi nga xam ne ci la ñu nekk tey yi incha allah ñu ci war a jàngale yarub xale yi nga xam ne ngeen buñ neesa yi ñaari way dencoon tey yi ngi ci sëy boobu borom subhanahu wa wërsëgal leen ci njaboot njaboot googu nag naa bu leen ko yàlla dénkee am na luñ ko luñ leen war a yaree dañ leen war a taxawoo kon incha allah tey suñu thème mu tey bi loolu lay doon yaru xale yi ki ñu koy waxtaanal mooy suñu mbokk Seyda Fatima Diop madame Seck incha allah moo ñu taxaweel boobu tem ñu koy ñaanal borom subhanahu wa taala mu dëgëral ko nekk lu kawe njortam ci waxtaan bi Seyda bi faddali mashkura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 sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi man tabi'ahu bi ihsaanin ila yawmi ddin mbokk jullit ñi ginnaaw bu ñu sante borom subhaanahu wa ta'ala ñu ngi julli ak sëlmal ci sang bu tedd ba di suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaana jàmm ak mucc moom ak ay saxaabaam ak i waa këram ak képp koo xamante ne rek topp nga njubam bi ba keroog saadi taxaw ñu ngi am mbégte ci ànd ak suñuy mbokk jullit rawatina suñuy mbokk jigéenu jullit ci jotaay bii di jotaayu xam-xam jotaayu diine waaye nag di jotaayu yiw di ànd ak ñoom ci lan ci ab séminaire boo xamante ne lañ fay waxtaanee mu ngi aju ci lu am solo ci dundu jullit bi rawatina jigéenu jullit rawatina jigéenu jullit muy formation boo xamante ne dañ koy def ci néegu sëy di rafetlu euh, jotaay yi nga xamante ne jot na fee jaar di ñaan borom bi subhaanahu mu defal ñu dégg ak topp mbokk mi nga xamante ne moo ànd ak yéen ci jotaay bi tey di Seyda Fatima Diop dëkk Kaolack eh, war a ànd ak ci benn xaaj ci benn xaaj wala boog benn thème ci formation bi mu aju ci yarum xale yi yarum xale yi ndaxte ku wax néegu sëy rekk nga wax njaboot te ginnaaw buñ leeralee lan mooy sëy ki àtteem àq ya dox ca diggante woy dencante ya labat ga bañ tàmbalee ca labat ga eh, dugg ba ci biir néegu sëy wax la ca aju ci ay àq ak ay yelleef dina jaadu tamit ñu wàcc ba ci suuf ci ñi nga xamante ne ñooy njaboot gi tamit wax lu aju ci seeni mbir rawatina ci seen yar kon ci loolu lañ bëgg a waxtaan ak yéen incha allah ñu ñaan borom subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq ak sadaat defal ñu dégg ak topp ba lépp loo xamante ne wax nañ ko fi mu nekk wax ju jub mu nekk wax ju leer wax joo xamante ne dina dugg dina dugg ci bépp nopp boo xamante ne mu ngi koy déglu te bu ko dégloo ba pare mu amal ko njëriñ loolu yomb borom la subhanahu wa taala yàlla nañu ko defal asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi del siwaat di ànd ak yéen ci suñu euh, thème bi nga xamante ne moom la ñu jagleel moom mooy yarum ndaw ñi mu nekk tem bu am solo boo xamante ne thème la bu ñëw ci waxtoom thème la boo xamante ne jamono jii kat luñ war a xamaat la luñ war a gën a yaatal luñ war a gën a jàngat luñ war a yaatal luñ war a gën a jàngat ndaxte kat am na solo am solo goo xamante ne foo ko natt rek weesu na ko ndaxte ndaw dafa nekk ku am solo ci société bi yenn saa yi nag dañ leen di xeeb duñ leen bàyyi xel bal sax dañ leen di fàtte wante nag ñu am solo lañ ci société bi ndaxte société bi ñaar ñoo ko seq ndaw ak mag te ndaw ña ñooy màgg daal nekk mag kon suñuy ndaw e, ñun jullit ñi ndaw lañ ñoo xamante ne yuñ war a préparer lañ ndaw yuñ war a yar ndaw yoo xamante ne dañ leen a war a defar tàmmal leen mbaax ak jub ba nga xamante ne suñ màggee e, loolu daal di mën a continuer mën a feeñ bu ko defee société bi daal di baax waaye bu ñu sàgganee suñuy ndaw rek duñ am mag ñi bëgg a am kon mag ñi ca ndaw lañ leen di préparer euh, thème bi nag xaaj nañ ko ay xaaj thème la bu yaatu nag daanaka booy gëstu li ci nekk lépp xajul ci benn jotaay waaye euh, indi nañ ci lenn loo xamante ne incha allah yaakaar nañu dinañ si mën a jariñu xaaj bu njëkk bi moom mooy wax li nga xamante ne wala xamle ci tënk lenn rek ci tënk li nga xamante ne euh, thème bi am na ko solo importance bi nga xamante ne thème bi am na ko euh, importance bi nga xamante ne thème bi am na ko bi ci njëkk te euh, xaaj boobu moom la ñuy woowee ahamiyatul mawdu mooy thème bi importance bi nga xamante ni am na ko liñ ci wax rek mooy ne yar euh, yarum xale yi importance bi nga xamante ni am na ko doyoon na sëkk rek ne roy la roy la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam ñu ñu woon lañ lii di yar ñu yitte woon lañ ñii di yar buñ xoolee euh, jàngee dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ak ay saxaabaam dinañ seetlu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yittewoo woon na lool li nga xamante ne moom mooy yar euh, bu ñu xoolee tamit saxaaba yi ak taabiin yi ni dinañ gis bu baax euh, wala boog loolu dina feeñ bu baax a baax di seen dund te buñ xamee ñoom naka lañ loon yaree ñañ nekkaloon rek ñun dinañ xam wala boog dinañ xam nu ñuy teg fu ñuy teg suñ tànk pour daal di yar suñuy ndaw incha allah euh, beneen euh, point bi ci importance bi nga xamante ne euh, Maodo bi am na ko mooy ne yàqu ni mu bëree léegi alfasaad zuhurul fasaad wa sufratuhu mbon ni mu bëree ni mu tasaaroo ni mu yombee nga xam ne léegi suñuy ndaw lu leen yàq lu yomb la mën naa ne soriwul dara dara dara dara lu yàq suñu ndaw soriwul dara dara dangay yor sa doom ci biir kër gi di def ci moom di góorgóorlu ci moom fekk ne la koy yàq génnul biir néegam bal mu ci diggante ñaari loxoom mooy suñu téléphone yi kon euh, téléphone yi ak li nga xamante ne moom mooy internet bi bokk na ci li nga xamante ne moo ngi yàq te di yàqin yàq di yàq yàqin bu gaaw lool yàqin bu gaaw lool yàqin boo xamante ne tamit mën na laa yàqal lu bari yow waajur bi te sax doo ko yëg te doo ko yëg mën ngaa jékki-jékki rek sa doom soppeeku te demul dikkul doo xam lu ko waral fekk ne internet bi la kon loolu rekk doyoon na ci ñuy waxtaanee tem bi mooy yàqute li mu ak li nga xamante ne moom mooy internet tasaaroo gi nga xamante tasaaroo na ko te yomb lool te bàyyiwuñ ci xel ba pare utiliser wuñ ko nañ ko war a utiliser donte ne lu am njëriñ la beneen biñ ciy wax mooy ne importance bi nga xamante ne yar am na ko day tax ki nga xamante ne moom la yar dañ day tax mu préparer ëllëgam day tax ëllëgam mu xam nañ la koy taxawalee ndax xale bi nga xamante ne mu ngi nekk gone ñuy def ci moom yenn jikko yi def ci moom yenn xiyam yi nga xamante ne loolu dina ko jàppale ba su màggee mu daal di xam fu muy taxaw waaye nag mu daal di xam li nga xamante ni fa lay teg tànkam ba yow waajur bi euh, yoon bi nga xamante ne tracé nga ko sa doom tracé nga ko ca ba mu nekkee ndaw yar ko ci tàggat ko ci su màggee day mën daal teg tànkam ci yoon boobu daal di jëy continuer gannaaw bi nga xamante ne neex na borom bi subhanahu wa taala ndax kat at tawfiqu min allah at tawfiq wal hidayatu min allah Euh, loolu moom kiy yar chaque jour daf koy bàyyi xel nekkat euh, jub ak tawfiq loolu si loxo borom bi subhanahu wa la nekk ñun dañuy góorgóorlu rek def li nga xamante ne moo ñu war mais nag jubal euh, ak yombalal loolu yàlla moo ko moom moo koy def ci ku ko neex waaw moo koy def ci ku ko neex kon moo tax parfois nga gis ku sonn lool ci njabootam ba mu nekkee gone lay tàmbale di euh, kërti kërti lu nekk mu dugg ca jàngal na ko def na li mu war lépp li ko waroon yépp def na ko ci njabootam waaye nag daanaka day gis ne moom amul benn résultat su boobaa bu yaakaar ne moom dafa échec déedéet xañ na ne loolu moo neex borom bi waaye nag def na la ko war kon loolu luñ war a xam la mooy ne yar day defar ëllëg ëllëgu ndaw yar day defar ëllëgu ndaw kon li ngay samp walla boog li ngay ji ci xale bi bi mu nekkee gone loolu ëllëg lay feeñ ëllëg lay feeñ beneen bi mooy moyen la yar moyen la ci xale bi ëllëg am ay jikko yu kawe am ay jikko yu màgg xale bi ñu yar chaque jour rek day wutee ak ki nga xamante ne yaruñ ko kon yar moomu lu am importance la lu am importance la te yi ñu tudd nii bokk na ci importance yi nga xamante ne yar am na ko waaw day tabax day tabax lool wala day defar boo euh, li nga xamante ne moom mooy ëllëgu ndaw ndaw beneen bi mooy xale biñ yar ki nga xamante ne yar nañ ko yar bu baax yaru diine yaru lislaam kooku dafay mën a supporter ëllëg lu nekk day mën a mu waajaxa tamit jàkkarlook lépp loo xamante ne ñëw na ci dundam xale bi ñu préparé ndaw li nga xamante ne préparé nañ ko ci préparation bu baax yar ko ci yaru diine am luñ def si moom kooku ëllëg lu nekk dina ko mën a taxamul wala boog dina mën a taxamul lu bëree bëree bëri ci ay fitan ci ay masaib ay shadaid lépp loo xamante ne ñëw na ci kanamam rek dina xam naka la koy naka lay jàkkaarloo ak moom waaye naka lay jàmmaarloo ak moom day wutee ki nga xamante ne nag luñ ko dara dañ koo bàyyi rek muy dox di dem kooku ëllëg lu gis rek du xam lu muy def du xam lu muy def day daal di jaaxle kon loolu mooy ahamiyatul mawdu la bokk bokk na ci eh, am solo bi nga xamante ne mawdu bi ñu tànn am na ko solo kon loolu mooy li nga xamante ne moom lañ doon wax ci importance bi nga xamante ne eh, yar am na ko wala boog liñ tudd noonu bokk na ci importance yi nga xamante ne eh, thème bi am na ko solo beneen bi ñuy ñëwaat moom mooy xam lan mooy yar lan mooy tarbiya ci xamin boo xamante ne xamin bu gàtt lay doon boo xamante ne dinañ ko mën a comprendre ndaxte defal nañ ko ay taarifaat yu bëree bëree bëri waaye nag mën nañ ci indi lenn rek loo xamante ne lu gàtt lay doon waaye lu tënku lay doon ba nga xamante ne dinañ ko mën a comprendre moom mooy al islaax wa tahdib آه، وتوجيه ميول الولد ابنا أو بنتا وربطه بالأخلاق الحميدة والعلاقات الإنسانية الراقية وكبح جماه الشهوات ورفع القوى نحو الخير والصواب كن لول موي يبنل أك ير أك أوريانتي بغ بغ خالبي ginnaaw bi nga xamante ne نيك داو nekk فاو kon faawu mu nekk ku ñuy teg ci yoon lay doon ku ñuy yéwénal ay mbiram euh, orienté ay bëgg-bëggam kon xale bi doo ko bàyyi rek ci lim bëgg moo xam lu bon la bu fekkee nag euh, bu fekkee ne lim bëgg surtout bu fekkee ne lim bëgg lu bon la kon duñu wax ne xale bi nañ ko bàyyi rek ci lu ko neex lu ko neex mën na koo def déedéet mais dañ koy orienté su fekkee ne lim bëgg li nga xamante ne fa tànkam nekkul lu baax dañ naan ko kat fii nga teg sa tànk nekkul lu baax kon loolu mooy lu njëkk li moo xam góor la nag wala jigéen la euh, ba pare jëm koo tënk ci ay jikko yoo xamante ne jikko yu rafet lay doon ak ay jikko yoo xam ne jikko yu nit lay doon mu nekk koo xamante ne dañ koy dañuy def ci moom ak nite dañuy def ci moom ak yar goo xamante ne jikko yu kawe lay doon nga xamante ne kii fu mu taxaw wax sax wala mu jëf ñu xam ne kii kat ku ñu yar la waaye nag dindi ci moom lépp loo xamante ne ay xalaatin la wala ay yëngatu yoo xamante ne lim jëm rek mooy ci bànneexu bakkan ak bëgg-bëggi àddina kese déedéet waaye tamit yëkkati ko yëkkati ko ci lépp loo xamante ne day jëm ci lu day jëm ci yiw ak ak mbaax day jëm ci yiw ak mbaax kon daal ci gàttal bu ñuy wax yar lii mooy li nga xamante ne moom mooy ak tarbiya fexe ba nga xamante ne xale bi dinañ ko orienté waaye tamit dinañ ko yar xamal ko lu baax ak lu bon bu fekkee nag dafa jël yoonu yoon boo xamante ne nekkul yoon bu baax ñu ne ko kat yoon bi du yoon bu baax waaye nag kaa ñu won la yoon bi nga xamante ne mooy yoon wa yoon ba nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca la nekkoon ak i saxaabaam ak i taabiinam kon loolu bokk na ci xamle yi nga xamante ne xamle nañ ko bokk na ci tamit préparé xale bi préparé boo xamante ne bu mat lay doon i'daadul walad i'daadan kaamilan min jamii jawanib préparé ko préparé boo xamante ne préparé bu mate lay doon ci côté yëpp nag fexe ba xamal ko lépp loo xamante ne day ëmb dundu àddina waaye tamit day du ëmbaale àllaaxira kon xale bi du yam kase ñu xamal ko àddina kase dangay dégg ñu naan diw kat xamul àddina kon diw dafa war a xam àddina waaye tamit dafa war a xamaale li nga xamante ne moom mooy àllaaxira kon xale bi war nañ koo tàggat yar ko xamal ko li nga xamante ne moom mooy ay jikko yu rafet xamal ko li nga xamante ne moom mooy dund dund gu dal loo xamante ne mooy baaxal àddinaam waaye tamit li nga xam ne moo gën a am solo mooy tamit li baaxal àllaaxiraam kon loolu mooy xamle bi nga xamante ne xamle bu gàtt la te ëmbale euh, leeral te gën a mën a leeral incha allah. kon ñu ñëwaat ba tey ci beneen xaaj ci thème bi. moy lu aju ci yeen côté euh lañ wara yaré manam jawani bu tarbiya kon xamné nañ lan moy importance euh yar xamlé ci bopam lan moy yar waye tamit war nañu xam xale bi ci yeen côté lañ ko wara yaré euh mu nek côté yu bari bari jawani mukhtalifa fa hunaka tarbiya al imaniya wa tarbiya al xuluqiya wa tarbiya al jismiya wa tarbiya al aqliya wa tarbiya nafsiya wa tarbiya al ijtimaiya wa tarbiya al jinsiya kon tarbiya nekkul benn côté kase déedéet waaye nag xale bi war nañ ko yar ci côté yu bari te kon loolu dafay dellu ci xamle bi nga xamante ne le woon nañ ko mooy ne dañ ko war a préparer préparer boo xam ne préparer bu mat lay doon ba nga xamante ne côté yëpp fuñ ko fa laal rek dañuy fekk ne kat kii ku ñu yar la Euh, kon mu ngi noonu euh, kon xale bi war nañ koo préparer ci côté yooyu ñu tudd yëpp lu aju ci wàllu al euh, tarbiya al imaniya mooy lu aju ci diineem xale bi âge bi nga xamante ne fa la toll bu nekk am na loo ko fa war a mën a xamal bu ñu wax ne xale la rek nga fàtte ko wala nga bak bañ kaa jox yenn yitte yi di ko ihmaal ci wàllu diine di ko bañ a bàyyi xel ci wàllu diine te fekk ne nag mu lay rëcc am na âge boo xamante ne mu ngi lay rëcc kon âge boobu dangaa war a profité xamal ko lenn ci ci diineem ndaxte am na ay az masalan ay azkaar yu gàtt azkaar booy tëdd xale bi su tàmbalee wax war naa mën a mokkal yenn azkaar yi buy lekk buy génn këram buy sol yére kon côté boobu tamit danga kaa war a xam xamal xale bi ci âge boobu nga xamante ne fa la toll mën a gut euh, liir waaye nag mën naa mokkal nga fexe ba mokkal yenn saar saar yu gàtt yi ci alquran kon nga yittewoo lool li nga xamante ne moom mooy euh, tarbiya al imaniya beneen bi moom mooy tarbiya al xuluqiya na ci tarbiya al xuluqiya mooy fexe ba yar xale bi ci ay jikko yenn jikko yi nga xamante ne islaam da koo xamle waaye islaam da koo jàngale te islaam tamit da koo bëgg dafa bëgg ñu koy teel a tàmbale ci gone gi di ko teel a def ci gone gi xamal ko yenn jikko yi nga xamante ne jikko yi lislaam la waaye tamit bëgg nañ nga yar ko ci ci li nga xamante ne moom mooy wàllu jëmmam tarbiya al fexe ba euh, mu nekk xale boo xamante ne xale bu correct lay doon ku ko gis xam ne kii kat ku ñu toppatoo la kon waroo ko sàgganee lu aju ci wàllu lekkam ak naanam ak li nga xamante ne moom mooy ab euh, fajoom xale bu feebaree dañ ko war a faj kon loolu yëpp day dugg ci tarbiya kon tarbiya nekkul jubanti kase awal la ci yoon bu baax waye tamit xale bi warna mel no xamantene ne ko gis dina xamne ki kat ñu koy topato ndax lool akam la waye tamit tarbiya al aqliya fexe ba bàyyi xel xale bi ban façon xale la xale bi kat xelam neexna wala xelam neexut xale bi kat heure bi ni âge bi mu am ni lan la wara fexe mu mën lan laa war a fexe mu moytu ko ndaxte xale yi lu si ëpp dañuy bàyyi xel dañuy muus dañuy muus te dañuy bàyyi xel yow yow nga xamante ne yaay waajur bi war ngaa bàyyi waale xel côté boobu mooy côté xelam côté xelam lépp loo xamante ne tamit dafay tax mu gën a muus wala mu gën a am xel tamit nga daal di ko ci jàppale nga daal di ko ci jàppale te mu nekk loo xamante ne luy dagan lay doon waaye lu dëppoog islaam lay doon fexé ba xalé bi euh, nga tagat ko ci euh, lépp loo xam day nam xelam lepp lo xam day day nam xelam waaye nak mu nek lu dagan te lu deppok diine lislaam euh, bokku na ci tarbiyal ijtimaiya mom moy fexé ba xalé bi nek ku social xale boo xamante ne dafay bëgg nit ñi xalé bo xam da fay jaxaso ak nit ñi xalé bo da fay jaxaso ak nit ñi waye nak da fay adopté wu tamit ak nit ñi du bàyyi du nekk xale boo xam ne fu mu toll day beru day beru nga bàyyi ko ci noonu déedéet mais danga koy tàmmal mu nekk xale boo xamante ne dina mën a jonjante ak ay moroomam waaye nag dina mën a bëgg ñi nga xamante ne mooy ay moroomam tàmmal ko li maye xamal ko yooyu noonu loolu dafay joué ci côté boobu noonu moom mooy al ijtimaiya waaye tamit tarbiya al jinsiya fexe ba xale bi xam moom mooy kan góor la wala jigéen la góor la wala jigéen la tàmmal ko bu dee góor la nga tàmmal ko yëfi góor tàmmal ko yëfi góor di ko solo col kay góor moytu lépp loo xamante dañ koo aaye ci góor di ko jëfandikoo te loolu ñu koy tàmbalee ci bu nekkee xale waaw lépp loo xamante ne tamit jigéen da koy da koy soxla nga daal di ko koy eh, tàmmal lépp loo xamante lislaam farataal na ko si jigéen masalan lu mel ni muuru yenn saa nag da ngay gis nit ku muur doomam xale bu ndaw parfois deux ans trois ans di génn muur doomam nga dégg ñu naan ko yow xale bu ndaw bi ngay muur parfois dañuy gis sax ñi nga xamante ne dañuy dund sunna wala dañuy dund diine ñu jàpp seeni xale yu jigéen ñi ndaw ñi di leen létt ay mèche wala di leen defal yenn coiffure seen bopp yi boo waxee ñu ne dañuy profité ndax su màggee dootu ko mën a def subhanallah mel ni loolu dafa nekk lu dagan Euh, kon li nga xamante ne dañ koo aaye ci jigéenu jullit mu di ko def loolu xale bi mu nekkee xale nga koy teel a teel a tàmmal daal di xam ne lii kat dafa xaraam parce que loolu jullit bi ci koo bëgg ak même âge bu ñu watte bu ñu bu ñu toll âge bu ñu mënti toll loolu waruñ kaa bëgg ndaxte dafa xaraam euh, islam da koo aaye islam da koo aaye lu mel ni di mees sa sa doom ci jamono ji mu nekkee euh, xale kon loolu tamit luñ war a bàyyi xel la. kon loolu daf ñuy wan wan ne tarbiya nekkul ne euh, ci benn côté dongu la la aju waaw nekkul ne ci benn côté dongu la aju nekkul na tamit tarbiya moom mooy di jox xale bi lekk gu baax naan gu baax teg ko ci euh, condition yu baax dugal ko ci école bu cher euh, di ko fayal jàng utal ko oto bu koy jël si di ko yóbbu di ko indi déedéet kon tarbiya nekkul loolu kese waaye tarbiya tarbiya gën naa yaatu loolu kon ñu fi tudd nii euh, bokk na ci xaaj yi nga xamante ne ki nga xamante ne mu ngi yar war na ko bàyyi xel euh, ñu ñëwaat rekk ci euh, beneen xaaj ci suñu thème te mu nekk al muassisat at tarbiya <coughs> ñan ñooy base ci tarbiya ci yar bu ñu waxee yar nekkul rek ne waajur bi papa ak yaay kasse ñoo ñoo mëna yar aha kay ci lañ bokk ñoom ñoy ñoy base bi ñoy ñi nga xamantene euh ñoom yar dafa war ci ñoom xale bi dañ ko wara yar tek ko ci siratal mustaqim waye nak yamul kasse ci ñoom madrasa al madrasa li ñu woyé école te loolu moo nekkoon cosaan ci école moy ni école dafay yar kon nit ki nga xamante ne waajur bi nga xamante ne jël na doomam yóbbu ko ca école ba lam namm wala boog lam ca namoon moom mooy ñàngam ak yaram kon école nekkul tamit palace bu ñuy jàngee kese waaye palace bu ñuy yaree la waaye nag loolu nag tey jii lu ñu lu ñu lu ñu jooy la lu ñu manqué la ndax tey boo demee ci école yi sa yaram day daal di daw da ngay yaakaar ne sax fii nekkut nekkut place u yarukaay ndax la nga fay gis ci ay eh, yu ay safaan rawatina école yi nga xamante ne ñooy jàng diine dangay dem gis fa yoo xamante ne ndeysaan yow jullit bi da ngay daal di tiit kon tey suñu école yooyu lu ñu war a xoolaat la waaye tamit lu ñu war a bàyyiwaat xel la kon école day joué ci li nga xamante ne moom mooy yar wala boog bokk na ci eh, ñi nga xamante ne dañuy participer ci yar eh, bokk na ci tamit al masjid bu ñëkk ba masjid dafa bokkoon ci palaasu yarukaay yi masjid jàkka dañ fay dem di fa jullee waxtu juróomi te julli rek dem di julli ji rek dem di julli ji rek loolu rek euh, lenn la ci yarub diini al islam ci yarub diini al islam kon euh, jàkka ne woon na bu njëkk ba palaasu yarukaay dañ fa daan jàngale tamit jàkka yi dañ fa daan jàngale di fa def ay waxtaan après julli dajale nit ñi waxtaan ak ñoom tegaat leen ci yoon kon yooyu place la woon place yoo xamante ne tamit da daan participer ci ci yar euh, kon loolu tamit lu ñu war a bàyyiwaat xel la xam ne jàkka yi tamit place su yarukaay la beneen bi moom mooy dajaloo yi nga xamante ne euh, shabaab bi daan nañ ko dajaloo comme ay jotaay yoo xamante ne euh, masalan dañ koy fekk ci école yi école yi dañuy def ay tajammuwaat yo xamantene dañuy jàngale lu ci ëpp dañuy orienter tamit xalé yi ci lu bare bare bare euh tay ji ñun mën nañu wax ne ñun li ëpp si ñun si ñun mbir yu bari ci école lañ ko lañ ko xamé mbir yu bari ci école lañ ko xamé mën na am sax seen tënku ci alquran ak sunna mu ngi leen fekk ca école ya wala ñu ko jëlee ca école ya kon école place la boo xamante ne wala ori euh, dajaloo yi nga xamante ne shabaab bi dañ koy dajaloo kon loolu lu am solo la beneen bi nga xamante ne tamit bu am solo la te tey tamit bu lu tasaaroo la moom mooy wasaa'ilul i'laam réseaux sociaux yi kon yooyu tamit day participer ci yar nim nim gaawee mën a gaawee yàq noonu la mënee defar kon nañ ko bàyyi xel moo tax nañ bàyyi xel suñu réseaux sociaux yi nañ bàyyi xel yi ñuy tasaare nañ bàyyi xel yi nga xamante ne moom lañ cay dugal suñuy njaboot di ko liir am na si ñu bëri ñoo xamante ne ci lañ ci lañ sànkoo am na si ñu bëri ñoo xamante ne cay si lañ sànkoo comme lañ waxoon ci tàmbale ba rek euh, nit dina dugg dina nekk ci biir këram di yar ay njabootam di yar ay njabootam ay ati ati at benn fan ñëw rek euh, li ëpp ci njabootam daa di soppeeku te du xam lu ko waral fekk ne la ko waral moom mooy réseaux sociaux yi kon mu ngi participer ci surtout si jamono ji ñu nekk participation bu am solo participation bu doy waar ci yar bi tey ji xale yu bari ñàkk nañ seeni seeni valeur tey jullit ñi lu ci ëpp ñàkk nañ seeni valeur te li waral moom mooy réseaux sociaux yi ndax yéen cee gis wala yaasu billah kon yii yëpp ay mbir la yoo xamante ne dafay participer ci yaru ndaw ñi moo lu ñu war a xel la lu ñu war a defaraat la surtout réseaux sociaux yi ñi nga xamante ne ñoo jiite réew mi war nañoo bàyyi xel loolu ut suñuy matukaay ba nga xamante ne euh, suñu njaboot duñu sànkoo ci li nga xamante ne moom mooy réseaux sociaux yi waaye nag waajur bi nga xamante ne mu ngi ci biir këram moom tamit ku war a bàyyi xel la li nga xamante ne moom mooy la doomam di jëfandikoo ca téléphone ya ak ca internet ba euh, lu mu war a bàyyi xel la waaye lu mu war a lijjanti la lu mu war a lijjanti la bul jënd sa doom téléphone rek jënd ko connexion bàyyi ko fu ko neex dugg te doo xam ci lan la nekk xale yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi dugg fu ne xale yaa ngi dem fu ne dañuy gis ku tëdd néegam waaye wër na àdduna bi yëpp daal di del si waat ñu nekk ma nga ca loolu nag day participer bu baax ci yar bi dangay gis koo xamante ni chaque jour mu ngi góorgóorlu ci njabootam di yar waaye du gis benn résultat fekk ne dafa am lu koy yàqal te mu ngi ci biir këram bal mu ngi ci biir néegam bal mu ci loxo loxoy xale yi te boo demee sax moom moo ko daal di jënd kon ñu ngi ñaan yàlla mu musal ñu ci lépp loo xamante ne daf ñuy yàqaat suñu yarum njaboot daf ñuy yàqaat suñu yarum njaboot. Euh, bokk na ci ba tey xaaj yi nga xamante ne euh, xaaj nañ ko suñu thème bi moom mooy manhajul Qur'an fi tarbiyatil awlaad al Qur'an ban yoon la jël. ci li nga xamante ne moom mooy at tarbiya kon kii yar war naa xam yoon bi nga xamante ne moom lay yare yoon bi nga xamante ne moom lay yaree bokk na ci at tarbiya bi targhib targhib buñ ko waxee moom mooy chaque jour ngay fexe di xememloo ki ngay yar ci li nga ko bëgg a yar ngay fexe ba di ko xememloo nga xamante ne dafa am loo koy dikk danga koy dikk dara masalan sa doom nga ne ko boo jullee ma may la cent franc boo jullee ma may la deux cent boo jullee ma may trois cent wala boo wooree tey kat su subaa dinaa la jëndal nangam euh, soo mokkolee saar bii kat dinaa la defal nangam kon loolu mooy ak tarasib nga xam ne day sawarloo nit ki wala day sawarloo xale bi ca la nga koy ca koy digal te yàlla borom subhaanahu wa euh, اتلدنا لولبري تي القران وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار الى اخر الايه كون ايه من نون تي القران يالا دي واخني دغالال نيغا خامتاني دانيو دنج ما گم واي نك دانيي جيف لو باخ نلن كات يالا بروم سبحانه وتعالى مون لين ديك اجانا اجانا يو خامتاني موغي ام اي سيو نداي يي داو اي انهار يو خامتاني موغي ay géej yoo xamante ne géeju soow lay doon wala géeju laban géeju meew wala géeju sàngara yoo xamante ne ñu ca biir alquran ñu ngi ca biir àjjana kon loolu yàlla borom subhanahu wa taala mu ngi ñuy dikk mu ngi ñuy dikk foofu kat mooy ñi nga xamante ne kat ñen ñoo ko moom mooy ñi nga xamante dañoo gëm ba pare di jëf lu baax kon loolu euh, manhaj la ci ci ki nga xamante ne day yar mu daal di koy utiliser di fexe bay di xemmemloo sa doom ci li koy defloo nga xam ne bu ëllëgee day sawar pour daal di koy def te nekk na moyen boo xamante ne bu am solo la ci kiy yar mu daal di ko utiliser beneen bi moom mooy at tarbiya bi tarhib ragalloo ragalloo لول يا لبرم سبحانه وتعالى جفني نقطم جفني ونقطم في القرآن إن الذي بكون في آية إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما يا لما وقت آية بوبني إن الذين كفروا قاعد خمد دنيو ودي برم سبحانه وتعالى واي ود لي آية kéemtaanu borom subhanahu wa taala yàlla borom subhanahu wa taala ne dinañ leen dugal safara dinañ leen dugal safara lakk leen bañ xam saa yu seen yaram daal di ñoree ba xam ñu changé leen der yooyu noonu defaraat leen yeneen der yu bees lakkaat leen ndax lan ndax ñu mën a mos mbugal moomu noonu ndax amaana buñ leen lakkoon rek seen yaram yi xam mu jeex ñu bàyyi leen kon dootuñ yëg dara mais dañ leen defaraatal yeneen yeneeni der bu ko defee ñuy daal di mën a xam di yëg mitit boobu noonu yàlla borom subhanahu wa taala ne ku ku ku xereñ la waaye tamit ku kawe la kon loolu raglola raglu la lu raglu la lu raglu la fii yàlla borom subhanahu dafay digle lu métti lu raglu waaye ñan la ko dig mooy ñi nga xamante ne dañoo wéddi kon euh, xupp sa doom wala xupp ki nga xamante ne yaa ngi koy yar ragal loo ko ci biir boo xamante ne da ko waroon def mu nekk mbir mu bon nga ne ko ah soo defee lii kat yàlla da mere soo defee lii kat ah yàlla kat nangam bu ko defee mu daal di ragal bu ko defee mu daal di ragal nga xamante ne du ko ñemee def ko loolu méthode la ci ki nga xamante ne muy yar mu utiliser ko yen saa yi tamit mën nga utiliser ñaar yëpp ci benn ci benn place mën nga utiliser ñaar yëpp ci benn place comme ni ko yàlla waxee ci alquran ci beneen ci benn aaya wa id taadana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid yàlla day mu ngi ne dig na ne su ngeen ko santee mu mu dolli leen waaye nag bu ngeen ko weddee weddi li nga xamante ne moom mooy ay xéewalam ah mbugalamkat lu tar la kon foofu yàlla borom santala ñaar la fa digle ñaar la fa eh, digee benn bi tar tarxiib la mooy la in shakartum la azidannakum bu ngeen ma santee jaamu ma ma dolli leen seeni xéewal waaye nag ak tarxiib ñëw wala in kafartum su ngeen ma weddee weddi samay xéewal inna azabi la shadid sama mbugal mbugal mu tar la kon yoy bokku na ci man xaj yi nga xamante ki yar war na utiliser war na utiliser benen bi bokku na ci mom moy eh, at tarbiya bil hiwar moy di fexé di di di dialogue ak ki nga xamante yang ko yar di waxtaan ak mom di ko wo kon nekul na sa dom ki ngay yar lum def da nga war taxaw rek wax ko gëdd ko arsalé ko déedéet mais woo ko ci nekk ndaxte nit ñi bokkuñ nit ñi bokkuñ am na si ñoo xamante ne boo leen xasee yuuxu ci biir nit rek loo bëggoon si ñoom dootoo ko am surtout yenn xale yi dañoo dëgër bopp dañuy siisu kon yow yaa war a xam sa doom xam ban façon nit la xam ne kat kii kat même bu fekkee ku dëgër bopp la xale bu jubadi xale bu dëng waxuñ la nga taxaw ca mbedd ma di ko yuuxu taxaw ca digg ëtt ba di ko yuuxu mu def dara nga ñëw saaga ko yuuxu ko harcelé ko bu ko defee loolu dafay am lu muy rey ci moom surtout boo ko defee ci ay kanamu moroomam kon xiwaar lu mënta ñàkk la toog ak moom waxtaan ak moom digal ko tere ko ci uslub boo xamante ni uslub bu dal lay doon bu dal lay doon ndax yàlla borom subhaanahu wa wax na ci benn a idhaba ila firawn innahu taxa ba muy yónnee ca firawna Moussa pour mu dem ca firawna innahu taxa firawna ku bewoon la waaye yàlla la wax fa quulaa lahu qawlan layyinan na ngeen wax ak moom wax ju dal ak firawna nam bonee woon waaye nag yàlla borom subhanahu wa taala daf ne woon nañ wax ak moom wax ju dal laallahu yatadakkar aw yaxsha ndax kat mën naa am mu daal di fàttaliku waaye mën naa mu daal di ragal kon loolu tamit uslub la boo xamante ne wala manhaj la boo xam ne alquran daka laan doxee kon kii yar tamit faaw mu bàyyi xel loolu beneen bi moom mooy bokk na ci ba tey at tarbiya bil qissa fexe ba ki ngay yar di ko indil ay xissa diwkat ba mu defee nangam diwkat ba mu defee nangam indil ko xissa yonent yi masalan comme xissatu euh, Yuusuf ni ko yàlla waxee ci alquran leeral ko nga xamante ne Yuusuf fi mu jaar yépp ci kaso ba ba yàlla def ko mu nekk buur nekk na yonent te gis nga fa mu commencé woon ak ay mbokkam ak ay frèram jaar jaar yu métti yi nga xamante ne jaar na fa kon xale bi nga di ko xamal xissa yu mel noonu di ko waxal yi xissa yonente bi salallahu alayhi wasallama ak sahaba yi liñ naan dundi ak yonente bi ndaxte dund yonente bi moom dafa làmbee lépp côté bu nekk rek mën nga cee waxtaan ak sa doom yonente bi saa sallam ba mu defee woon nangam kat sahaba bi ba mu defee woon nangam lu masalan ci saraxe nga indil ko usman bam joxe alalam lépp yonente bi salallahu alayhi wa sallam keroog lu mo xon ma daral Ousmane ma faala ba'da al yawm Euh, Ousmane kat tey ji lépp lu mu defati du ko lor te saxaaba boo jël rek am nga benn exemple yoo mën a joxe ci moom wala ay exemple yoo mën a joxe ci moom di ko tàmmal loolu bu ko defee xale bi ñoom yi da leen di bàyyi xel ba ni muy màggee da leen di da leen daal di xam kon loolu bokk na ci manhaj yi bokk na ci manhaj yi nga xamante ne tamit alquran utilisé na ko mooy mawisa waaraate loolu tamit uslub la bu am solo da jël ay nit waar leen waxtaan ak ñoom surtout xale yi waxtaan ak ñoom ci waxtaan bu dal fàttali leen ndaxte kat comme ni ko borom bi waxee wa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin wa jaadilhum billati hiya ahsan di waxtaan ak ñoom ci waxtaan yu rafet loolu am na solo lool parfois yow yaay ji wala papa ji nga dajala sa njaboot ñoom ñëpp ñu toog nga waxtaan ak ñoom delloo si leen ci mbir yu bëree bëri loolu tamit bokk na ci manhaj yi nga xamante ne alxuraan da koy da koy doxe euh, ñu ñëwaat rek ba tey ci xaaj te nekk xaaj bu am solo te daanaka moom mooy waxtaan moo gën a am solo ci waxtaan bi moom mooy naka la ñuy yaree naka la ñuy yaree dañuy wax kat ne yar la ca jiitu jullit bi la ca jiitu nga xamante ne moom mooy paa bu njëkk ci yar sa doom mooy ixtiyaaru azawja assaaliha wa zawju saalih mooy fexe ba tànnal sa doom way jur bu baax moo xam ku góor ki la wala ku jigéen ki la yow jigéen ji booy sëy nga dugg ci ki nga xamante ne moom mooy ku baax ku am diine waaye yow góor gi tamit nga fexe ba ki nga xamante ni moom nga bëgg mu nekk sa yaayu doom mu nekk euh, jigéen ju baax waaye jigéen ju am diine ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa kat loolu la digle woon ida ataakum man tardawna diinahu wa xuluqahu fa zawijuhu bu leen dikkalee koo xamante ne kat borom diine la waaye tamit borom jikko ju rafet la nee na nga daal di nañ leen daal di maye waxaat ci beneen xadis fasfar bi daati diin gannaaw ba nga xamante ne nit ki mën naa tànn mën naa tànn ah, ci jikko mën naa tànn ci xeet mën naa tànn ci euh, ci am-am waaye nag la nga xamante ne moom mooy tànneef euh, tànneef bu baax bi moom mooy diine ndaxte boo ko deful rek taribat ya daag kon tànn la say say doom yaay tànnal say doom yaay kon yar ma ngay tàmbalee ca waajur ya kon yow mi nga xamante ne yaay jigéen fexeel ba am borom kër boo xamante ne dina la mën a jàppale ci sa yar sa njaboot yow mi nga xamante ne yaay góor tamit fexeel ba tànn soxna soo xamante ne kat ah bu ñëwee kat kii kat am nañ ci moom yaakaar ne kat dinañu jural doom ju baax wala boog dinañu jural doom ju am yar ndax kat daanaka la nekk ca yaay ja mooy nekk ca ca doom ya loolu mooy li nga xamante ne mooy li li ëpp kon foofu la yar ba tàmbalee mooy ixtiyaar azawja as-saaliha tànn Euh, nekkin ki nga xamante ne mooy nekk sa borom kër wala ki nga xam ne mooy nekk sa soxna il faut mu nekk ku ku baax waaye il faut mu nekk tamit ku am diine euh, baneen bi nga xamante ne tamit bokk na ci euh, nit ñi yaree mooy addu'a te mooy lu gën a am solo fi mu toll nii ndaxte tey bëri na ñu sonn lool ci seen yar waaye ndeysaan amuñ benn résultat waaye nag ñaan yàlla borom subhanahu wa mu wërsëgal la njaboot gu baax comme ni ko yonent yi daan defee rabbi habli min asalihin rabbi habli min asalihin comme ni ko zakariya daan waxee rabbi habli min ladunka zurriyatan tayiba innaka samiu duaa kaana ibrahim yaqul wajanubni wa baniya an nacbuda al asnaam kon ñaan borom subhanahu wa taala mu wërsëgal la ay doom yu baax amul lenn loo xamante ne nag moo ko ci gën féete kaw ginnaaw bi nga takkee sa soxna nga am ci moom yaakaar kat la ca topp mooy di ñaan te ñaan nga yaa ngi koy tàmbalee avant ñuy juddu yaa koy tàmbalee avant ñuy juddu euh, bokk na ci at tasmiyatu indal jimaa am na ñaan li ñuy wax ne yonent bi sallallahu alayhi amul dara loo xamante ne euh, luy jëriñ xeetam bi la lu dul ne leeral na ko digal nañu ko amul tamit dara loo xam daf ñuy lor lu dul ne tere nañu ko ba ci nit ki buy séq ak borom këram wala nit ki buy séq ak soxnaam digal nañ la fa azkar boo xamante ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ne law anna ahadakum إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مما رزقتنا فإنه إن قضي بينهما ولد لم يضره الشيء لم يضره shaytan abadan yonent salaam mi ngi wax ci xadis boobu ne nit ki bu demee ba war a séq ak borom kanam wala mu war a séq ak soxnaam mu wax bismillah ñaan ñaan bi allahuma jannibna sheytaan wa jannibi sheytaanu ma mimma razaqtana yow yàlla yàlla nga ñu musal ci seytaane musal ñu musal ko tamit musal ñu ci li ñu war li ñu wala wërsëgalee ci ci njaboot ci sëy bii tamit nga musalaale ko ci ci seytaan yonent salaam nee na loolu kat bu ca yàlla dogalee doom incha allah doom jooju seytaane du ko mënal dara te seytaane moom si ku mucc rek mën na mën wax ne mucc nga kon ñaan la tamit ñaan bu am solo boo xamante ne jullit bi war na di ko yittewoo ndax tamit day jouer rôle bu mag ca la nga xamante ne moom mooy njaboot ga nga xam ne moom mooy ga kon ñett mbir yi lu am solo la fexe ba booy tànn nga tànn yaay ju baax waaye tamit foo toll di ñaan borom bi subhanahu wa taala ndaxte la xawla lana wala wata ñun kat amuñ doole amuñ pexe dañuy def rek yàlla borom subhanahu wa taala comme niñ ko waxee woon at tawfiq wal hidayatu min allah yàlla mooy jubal ku ko neex kon ñetti mbir yi jullit bi war na koo bàyyi xel ci njabootam xam ne amel na leen ko lu mu war a def la loo xamante ne kat su ko defut ndaxte kat bu fekkee ne yow jigéen bi duggoo si borom kër bu baax wala yow ku góor ki tànnoo yaay ju baax nga bëgg njaboot gu baax du mën a nekk waaye tamit mën nga def effort mën nga tan soxna su baax wala nga am borom kër bu baax waye nak yego manam bayyi wo xel sa boroom nekkoo di ñaan sa borom yalla bàyyi la boppam seen bopp bu ko defee yeen tamit yeen dong mënu leen andi lu baax kon lolu lu jara a xel la ah, bokku na ci batay ni ñuy yare moy al aqida wal iman fi nafsihi fexe ba xale bi ngay yar tamit nga def ci moom aqida bu leer iman bu dëgër iman bu dëgër te loolu mu ngi tàmbale ci jàngal ko bu fekkee toll na ci jàng nga jàngal ko mu xam lan mooy te loolu waroo cee xaar sax mu dugg école sa doom bu tollee ci jàng nga xam ni kii kat fi mu toll nii war naa mën a xam nga fexe ba jàngal ko am na mbir yoo xam ne mën na koo teel a xam laataa muy dugg école lu mel ni arkanul ak umoo mbir yi nga xamante ne ay ay lañ xamal ko àjjana xamal ko safara xamal ko allaaxira xamal ko newkat julli ñi buñ defee lii yàlla leen di waaye nag boo euh, boo yéefari tamit li leen yàlla di fayee kuy def ndigalu yàlla lii la la yàlla di fayee kuy képp koo xamante ne day mooy yàlla tamit lii la yàlla di fayee loolu xale bi mën na koo teel a xam beneen bi tamit bokk na ci teel a def ci moom muy bàyyi xel borom bi subhanahu wa taala nga bañ a def xale bi ragal la yow fexeel xale bi bum la ragal yenn ragal yi ba nga xamante ne loolu mooy waral yow boo fàddoo boo fi nekkut lu ko neex lay def soo teewee nag mën naa jubal def li nga bëgg waaye nag boo fi nekkut moom danaan sama yaay nekk fi wala sama papa nekku fi lu ko neex lay def waaye da ngay fexe ba def ci moom muraqabatullahi subhanahu wa taala nga xam ne day bàyyi xel boromam nga xamanteni ne danaan kat kër gi même bu fi sama yaay nekkul wala néeg bi même bu fi sama yaay nekkul wala sama papa yàlla borom subhanahu wa taala mom mo ngi may gis kon sañu maa def dara lo xamanteni neexul yàlla su la su tukke wala yow waju bi nga tukki fu mu mënti nekk nga xamne mom kasse mo moo fa nekk waajuram neeku fa tamit du ñemee def leen ndax kat xale bobu dañu def ci moom muraqabatullah day muraqaba borom subhanahu wa taala waye tamit war nga fexe ba def ci sa doom bëgg borom bi subhanahu wa ta'ala ak ragal ko ak ragal ko mu nekk koo xamantene day bëgg yàlla waaye tamit daf koy ragal fexe ba def ci moom li nga xamantene moom al akhlaq al hamida, ay jikko yu kawe kawe kawe masalan jàngal ko dëggu mu nekk xale bu ñuy yar ci dëgg doo ko fen ndaxte tey ji waajur yu bëri ñooy tàmmal seen doom fen sa doom nit day ñëw di la nga ne ko bu ñëwee nee ko sama yaay nee na day nelaw wala sama yaay day nelaw wala sama yaay nekku fi te yow yaa ngi si kër gi ah, nit ñëw ne la diw sama yaay diw nee na yaay diw nee na kat nga abal ko nangam nga ne ko loolu amu fi te fekk mu ngi ca waañ ba wala mu ngi ci kër ga kon foofu yaa ngi jàngal xale bi fen bu subaa boo mokkalee ma yóbbu la fenn mu mokkal góorgóorlu mokkal yóbbuwoo ko soo defee nangam dinaa la may nangam mu def ko nga ne ko dama loon na ndax kon loolu yaa ngi jàngal sa doom xel teyigoo kon lu jikko yoo war nañ koo moytu fexe ba xale bi luñ ko dig ñu daal di ko koy jox jàngal ko tamit wóolu kóolute amaana mu nekk xale bu wóor xale bu wóor waaye tamit jàngal ko li nga xam ne moom mooy jub jàngal ko ay jikko yoo xamante ne da koy teel a xam da koy teel a xam jamono jam nekkee ndaw waaye moytuloo ko jikko yi nga xamante ne jikko yu bon la jikko yi nga xamante ni masalan lu mel ni fen saaga sa doom waroo koo saaga eh, tey nag loolu lu bëri la du saaroo la eh, sa doom jamono ji koy saaga yaa ngi koy jàngal saaga kon danga war a moytu di saaga ci sa kanamu doom saaga sax waru la waaye rawatina ci sa kanamu njaboot boo saagaa tey bu subaa dinga nga sa doom saaga te su boobaa bul yedd kenn ndaxte yow yaa ko jàngal kon lu ñu war a moytu la Euh, fexe tamit ba xale bi xam àq yi nga xamante ne moo dox ci digganteem ak nit ñi te bi ci jiitu moom mooy àq yi nga xamante ne ñoo dox sa diggante ak moo ñoo dox sa digganteem ak ay waajuram kon xale bi yow mi nga xamante ne dangay yar moo xam euh, jàngale kat nga moo xam yaay nga moo xam euh, sëriñ daara nga ak loo mënti doon dañ laa jox ay gone pour nga yar leen fexeel ba ndaxte gone yooyu ay ndénkaane lañ même bu fekkee say doom lañ sax ay ndénkaane lañ yoo xamante ne dañ la kaa dénk rek kon da nga war a fexe ba def si ñoom àq yi nga xamante ne ñoo jiitu ci diggante nit ñi mooy àq nit ak waajuram kon xale bi war ngaa fexe ba def ci moom mu nekk koo xamante ne dafay respect ay waajuram jox respect ay waajuram respecté ay waajuram du leen jàll baat du wax ak ñoom di leen yuuxu bal sax Euh, tey ñu bëri lu ñuy sàgganee du jaar ci seeni tur waajur da ngaa fexe da ngaa war a fexe orienté ci orienté xale bi mais day gis ñoo xamante ndeysaan lu seen doom wax ñu reetaan lu seen doom wax ñu reetaan te fekk ne du noonu xale bi dañ ko war di orienté xale boo xamante day jaar ci turu yaayam wala day jaar ci day jaar ci turu papaam nga ne ko déedéet fexe bam tàmm di wax yaay wala di wax papa ci commune niñ koy tàmm di waxee bu dee yeneen dëkk la nañ koy waxee waaye daal na fexe bu mu sàllalu nay woo yaayam ca nam ko war a woowee di woo papam tamit ca nam ko war a woowee tàmmal ko euh, mu nekk xale boo xam te ne waxuñu nag nga dawloo ko sa bopp mais nanga fexe ba mu jox la cër respecté la ba tey boo doon nelaw sax du la déranger boo doon nelaw surtout bu bu tollee ci yenn âge yi nag âge yi nga xamante ne xàmmee na tey boo doon nelaw du la déranger jàngal ko li nga xamante ne masalan fëgg buy dugg ci néeg nga xamal ko ne ko kat kuy dugg si nekk da war a fëgg ndaxte tey loolu ñu bëri dañ cee sàggan ñu dañ cee sàggan duñ ko sax bàyyi xel te lu ñu war a teel a tàmmal xale bi la euh, fexe ba tàmmal ko tamit buy génn muy tàggoo buy génn muy tàggoo génn muy tàggoo du génn lu dul ci ndigalu waajuram ndax loolu xale bi mu ngi koy tàmm ca ba muy nekk euh, ndaw ca nekk ndaw kon mbir yi kat mbir la yoo xamante ne kii yar war na koo bàyyi xel kii war na koo bàyyi xel bu baax a baax euh, bi ñuy mujjee nag di ay euh, ñaax yoo xamante ne alquran ñaax nañu ko ci yar ki yar njaboot gi yàlla borom subhanahu wa taala mu ngi wax ci uh, benn aaya yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara mu nekk aaya bu siiw aaya boo xamante ne chaque jour ñu ngi koy dégg yàlla di wax ne waxal yéen yéen ñi nga xamante ne yéen yéen a gëm kat moytu uh, moytul leen seen bopp safara waaye tamit moytul leen ko seeni seeni ñoñ seeni waa kër seeni njaboot kon uh, kat nekku ne mbir mi sa bopp rek ngay defar sa bopp rek ngay jubanti kon del bàyyi xel sa njaboot ngay nekk jàngalekat oustaz yaa sayda di génn di waaraate ci mbedd mi di def ay conférence kat am na solo lool waaye njaboot gi tamit wallahi dañuy gis ñoo xam ne dañuy génn di julli ci ci jàkka di jiite ji sax bal te seeni njaboot duñ julli kon mbir mi ci biir kër gi lañ ko war a tàmbalee mbiri ci biir kër gi lañ ko war a tàmbalee yar gi ci biir kër gi lañ ko war a tàmbalee bàyyi xel sa njaboot ndax ñu ngi julli wala duñ julli waaw ndax xale yi léegi dañoo doy waar waaye nag ndax la ngay digle ca mbedd ma la ngay toog ca rajo yi di ko wax ndax sa njaboot ñu ngi ci ndax tey loolu gàllankoor na lu bëree bëri ci daawa bi tey da ngay gis ñoo xamante ne déglootuñ leen sax ndax seeni njaboot ndax seeni njaboot am na ci ñoo xamante ne yàlla borom subhanahu wa taala da leen a am na ñoo xamante ne dañoo gàttañlu ndaxte dañoo desee bàyyi xel seen njaboot la ñuy digle ca mbedd ma kat dañoo romb seeni njaboot te sonnuñ ca ñoom yow mi digle muuraay say doomi jigéen di sàggan ci seen i muuraay wala ñuy sol loo xamante ne kat lu jéggi dayo la kon bàyyil xel loolu xu anfusakum wa ahlikum naara la yàlla wax moytu moytu leen seen bopp sawara waaye tamit moytu leen ko seen seen njaboot yàlla na sax mu ngi waxaat ci beneen aaya wa'mur ahlaka bis-salaati wastabir alayha kon aaya baa ngi noonu yàlla borom subhaanahu wa taala dafa ne wa'mur ahlaka yaa ayyuhal-lazina aamanu idaa qumtum ila salaa kon nit ñi gëm buñ jugee di julli waaye tamit julli nekkul ne kat ñun kese la war wala ka majeur kese la war waaye nag yow sa njaboot tamit ci lañ bokk wa'mur ahlaka bis-salaati wastabir alayha yonent bi sallam di wax ci beneen xadis kullukum raain wa kullukum masulun an raiyati te loolu mu nekk xadis bu lu yéen ñëpp ay sàmm ngeen te ku ci nekk yowmal qiyaam yàlla borom subhaanahu wa taala dina laaj la nga doon sàmm te sàmm ga kat ñi ci jiitu mooy njaboot gi kon njaboot gi kat ñu war a bàyyi xel lañ njaboot gi ñu war a bàyyi xel lañ ci lépp nag ci lépp di fàttali rek di gën a ñaax sama mbokk jigéen ñi ñoom ñi nga xamante ne yàlla borom subhaanahu wa taala ñoom la wax nañ toog ci kër yi wa qarna fii na yàlla ñun la wax nañ toog ci kër yi buyutikunna la wax kon kër yi ñun ñoo ko moom léegi nag jamono changé na ba ñu ci bëri mënatuñoo toog wala boog mënatuñoo toog li ëpp ci journée bi ci kër ci seeni kër ndax dañuy génn di liggéey yi ngal la waaye da nga génn liggéey waaye nag bàyyil xel sa njaboot ndaxte kat euh, waajur bi amalul aq bi gën a rëy nga xamante ne amal na ko njabootam moom mooy yar ko ci yarub diine yarub lislaam te génn di liggéey yow jigéen bi kat euh, waruta nekk ngant pour yar sa sa njaboot te tamit du lay te kanamu borom bi subhanahu wa taala ndax yàlla du la laaj liggéey ba ngay liggéey génn di ko liggéey ji déedéet njaboot gi la lay laaj njaboot gi la lay laaj kon njaboot gi lu mat a bàyyi xel la njaboot gi lu mat a mat a bàyyi xel la ci surtout suñu jamono ji ñu nekk nañu gën a amaat jotu xale yi nañu gën a amaat jotu ndaw ñi ndax lépp loo xamante ne def nañ ko ci ci njaboot gi rek yiw lay doon tey jii euh, waaye nag li nga xamante ne mooy lii nga xamante ne mooy lu métti mooy ne tey euh, ji surtout sama mbokk jigéen ñi génn dem liggéeyi ji moo leen gënal fuuf sax seen njaboot dañuy xëy sacrifier seen i doom am na suñoo xamante ne ñu ngi bàyyi xel seen i njaboot mais am na ñoo xam dañuy xëy sacrifier seen njaboot sànni leen lijjantiwuñ leen dem xëy nekk ci seen bërëbu liggéeykaay suba ba ngoon buñ ñëwee tamit amaatuñ soxla sonn nañ tëdd nañ nelaw lijjantiwuñ seen doom lu mu yendoo wala lu mu xëyee déedéet xale bi di def toj toj suba ngoon guddeeg ci jikko yu bëri mu ngi koy for ci mbedd mi te yow xamoo ko kon ñeen saa yi day jar nga toogal sa njaboot nag bàyyi leen xel di leen gëstu di leen lijjanti ndax kat lu am solo la kon foofu la ñuy tëjee incha allah waxtaan bi ñu ngi jéggalu lépp loo xamante ne jubla ci ñu xam ne si borom la jugee lépp loo xamante ne kat njuumte la ñu xamante ne ci suñu gàtt xam-xam ak cheytaani euh, la incha allah ñu ngi ñaan borom subhanahu wa taala ñu dégg ak topp ñu ngi sant ak gërëm ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ci groupe soppey sayda soxna Fatima Lo ak ñëpp ñi nga xamantene ne ñoo yor organisation bi di ñaan borom subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq ak taysir ak sadaat bu li ñu taxawal ñu diko gëna gën taxawal sa su nekk waye tamit mu gëna a tasaaroo rawatina ci côté jigen ñi wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin in uridu illa al islaax ma stataat wa ma tawfiqi illa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته